am ci euh, mbégte am ci fierté tamit fierté ndax euh, diine islaam du diine yi ngeen jégal ma ci kàddu gi du diine yi euh, wala kaana xam ndax noonu lañ koy waxee lu diine yi doyadi wala wane ni amuñu dara wala mënuñu dara waaye diine yi yàlla dafa wax ci alxuraan ni xéewal yi mu def ci àdduna da koo def daf ko defal nit ñi rawatina jullit yi ñu koo di fàggu waaye bu ñu ko fàggoo ba pare nañ ko fësal ci lu àndul ak ngistal fësal gi nag mooy nga sol ci lu baax lekk ci lu baax euh, tabax ci lu baax te tabax nag li ci jiitu mooy këru yàlla néegu yàlla muy jàkk yi kon suñu demee tey ba ñu am ay kuréel ci kuréelu jullit ñi di def lu mucc ayib ci néegu yàlla war a mu war a doon suñu fierté ñun ñëpp fii ci biir Sénégal waaye fépp ci àdduna dañuy dellu sant yàlla félicité leen euh, ñaanal leen tam ndax lii ku ciy liggéey liggéeyloo sa bopp respecté lañ fi ñu tëdd it ndax lii dama naan sax dama koy mi misaal ci wax waqf mooy lépp loo def loo xam ne lu baax loo bàyyi la ñu ne ku ko jëriñoo sa gannaaw rek dalay fekk fi nga tëdd ma gëm ni lii bokk na ci kon ñu leen ñu leen ñaanal yàlla mu fay leen ko ñi nga xam ne it ñooy kilifa diine yi am gis-gis bi am yéene bi soññ leen ci gunge leen ci yàlla neen ko yàlla fay ñoom it yàlla bàyyi leen suñu kanam lu yàgg yàgg yàgg ñu continuer di ñaanal réew mi di ñu tette di ñu aar di ñu jox seeni xalaat ci war a defar réew mi. bi may daanelee nag ndax kàddu gi du gudd mooy lii dafa war a am lu mu ñu jàngal ñun ñëpp mooy gëm sa bopp ñu gëm suñu bopp ndax gis nañ Sénégal ni communauté religieuse yi exemple bi ñuy wane toujours mooy exemple gëm sa bopp ñun ñi nga xam ne nag ñooy yëngatu ci beneen. fànn wi muy mbirum état ak mbirum euh, lu ñëpp bokk ci mbirum àdduna exemple la war a doon ci gëm suñu bopp gëm suñu bopp ni war nañoo mënal suñu bopp lu lépp lañuy tàllal suñu loxo di xaar mu jóge bitim réew bu ñu gëmee suñu bopp takku gëm liggéey yàlla mën nañoo defal lu raw lu kawe suñu jort te lii wane na ko ndax ñi ko def jéggaane ko fenn laajuñu ko kenn waaye nu ñu néew néew doole dërëmu taalibe yi dërëmu jullit ñi lañu dajale di ci dugal ba mu jur lu mel nii nga xam ne tey ay milliards dugg na ci loolu di benn njàngat bu ma ciy jàngat bu am solo ñaareel bi mooy jub ak jubal euh, président Bassirou Diomaye dafa wax jub jubal jubbanti ñu yónnee ñu ab vidéo boo xam ne euh, xalif général des Tidianes def naa ay at ci gannaaw dafa lu mel noonu waxee ko sama dëkk fële ci xombal kon mu dem ba daje te ñoom ñaari yëgoowuñu waaye li muy wone rek mooy lu ñuy def te jiital ci jub ak jubal mën nañ ci am résultat ndax bu doon ñu ñu dénk liggéey bi dañoo damm mbir yi def ko seen poos kon lu ñu gis résultat bi kon ñun ñi yàlla dénk état ñu nit te loolu mës doon problème ci Sénégal ñu fàttaliku ni dërëmu sénégalais la lañu dajale comme fii niñ fi dajalee dërëmu jullit ñi bu ñuy def dañu war a fexe ba mu dem ci faratay senegal yi bu ko defee ñu gis résultat bi ndax xam naa ni lii buñ la nee nangam lañ ci def ci milliard li ma leer ba leer mooy de suñ nee woon dénk nañ ko ay nitu état boo moytul ñu ñu multiplier ko par te résultat bu du am kon jub ak jubal mooy joxe résultat gëm sa bopp wóolu sa bopp xam ni fi ñeneen jaar ba egg fi ñu yegg boo fa jaaree raw leen ndax am nga lu leen manqué ñoom muy gëm-gëm kon yaay yooyu buñ ko dajalee rek yàlla mun nañu yombalal lépp ci réew mi suñu communauté religieuse yi nag wane nañu exemple def nañ ko ci démb ci Masaalikul naan def nañ ko tey fii def nañ ko feneen ak feneen ci yoo xam ne toujours ci seen farlu bopp seen jàmbarte seen organisation ak seen jubal ci ni ñu yore mooy joxe résultat boo xam ne ñëpp dañu ci teg seen bopp. kon ñun ñiy nekk ci wàllu état dañuy dañuy ñëw jàng à l' école des communautés religieuses moom nag dafa boole ñaari xam naa bu delloo summi mbubu imam bi donte kenn du ko summi sax waaye bu delloo fee ci IGE ba dina àndaale li mu doon source d' inspiration boo xam ne war na jàppale ñi nga xam ne moom ñoom la yàlla dénk tey war a jëm. ci defaraat réew mi jubbantiwaat ko euh, loolu mooy njàng jàngat yi nga xam ne ñu ngi koy jàng ñu ngi koy ñu ngi koy am fii. rendre grâce à Dieu et formuler les prières à l'endroit du sceau des prophètes. Euh, nous réjouir d'être ici. J'avais oublié de le dire en version wolof d'ailleurs en ce jour particulier. qui est le jour anniversaire du rappel à Dieu de euh, l'un des plus juristes fils du Sénégal, en l'occurrence notre grand-père Abdoulaziz Sidabach. Et il est heureux que la remise de la clé de la mosquée coïncide avec la célébration de la naissance du prophète, mais coïncide également avec cet anniversaire extrêmement important pour nous tous par rapport à relativement à à la dimension de l'homme qu'était euh, Mme Abdelaziz Dabakh. C'est beaucoup de choses qui coïncident en même temps aujourd'hui et qui donnent une symbolique particulière à notre présence ici au nom du président Bassirou Diomaye Faye, euh, qui nous a chargé au-delà de notre présence symbolique ici de délivrer un message euh, au, au Khalif général de Tidjane pour réitérer euh, tout son engagement à côté de nos communautés religieuses, de quelques obédiences qu'elles soient, à être présent à côté d'elles, à les accompagner, puisque pour nous, il est temps de formaliser les relations entre le culte et l'État. Réitérer également toute sa satisfaction d'avoir été accueilli comme il a été. Il l'a été il y a deux jours ici à Tuaon. Et marquer sa présence pour cet important événement. et au-delà, assurer toutes les communautés religieuses et en l'occurrence ici euh, euh, le Khalif général des Tidjanes de toute sa volonté à continuer à accompagner, à aider à finaliser les derniers euh, réglages, puisqu'on est à des, au, au, dernier réglage, pour euh, l'opérationnalisation parfaite de cet euh, ouvrage qui, qui suscite la, la fierté de tous les croyants. Au-delà, me réjouir aussi de l'accueil qui nous a été réservé par le calife et toute la famille de Seyd Hadj Malick Sy. Me réjouir de l'accueil également qui nous a été réservé par le comité à la tête duquel se trouve notre grand frère Mamadou Makhtar Cissé. Les féliciter pour le travail qui a été fait, qui est impressionnant. Ce que nous avons visité euh, est impressionnant et je le réitère encore, suscite énormément de fierté et d'envie même. Quand je vous envie, j'aurais aimé être là, dans ce comité, pour pouvoir euh, bénéficier de tout, toutes les grâces et vous dire que les ouvrages comme ça euh, ne sont pas édifiés pour euh, euh faire du tapalé. C'est une nécessité. L'islam n'est pas une religion de, de misérabilisme, de pauvreté, C'est une religion dans laquelle le Seigneur, à travers les versets du Coran et les hadiths du prophète salam, nous recommande d'aller à la conquête de tout, toutes les richesses qu'il a essaimées à travers le monde, de s'en approprier de manière légale et licite, mais une fois que c'est le cas, de pouvoir rendre grâce à Dieu en matérialisant, en extériorisant les bienfaits qu'il a bien voulu nous, nous servir par le port vestimentaire, par l'alimentation saine, par l'édification et la modernisation de nos cités, mais surtout par l'édification aussi des lieux de culte à la dimension de ce qu'est l'islam. Et c'est pourquoi c'est important d'avoir ce genre d'édifice qui n'est pas en compétition avec la construction d'hôpitaux, ou d'autres infrastructures comme certains ont tendance à le penser. Mais la foi est un élément déterminant pour tout le monde, particulièrement les Sénégalais, et elle nourrit l'âme et euh, la conscience des croyants. Il est important que cette foi puisse être vivifiée, magnifiée, aussi bien immatériellement que matériellement. Et ici, on est dans la vivification matérielle de cette foi. Et c'est pourquoi nous nous réjouissons et nous félicitons le comité Nous félicitons le Khalif général et toute la famille qui, pendant des années, n'ont eu de cesse, de, dans la persévérance et dans l'endurance, de continuer brique après brique à travailler, à édifier cet ouvrage qui sera, à n'en point douter, un, un élément d'attraction au-delà du Sénégal et qui, ce qui s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de notre politique touristique de stimuler le tourisme religieux également. Et c'est pourquoi ici, on a le spirituel qui vient rencontrer le temporel, pour être au service des Sénégalais, aussi bien pour euh, leur préoccupation matérielle que pour la vivification spirituelle de leur âme. Et je voudrais terminer par en tirer deux enseignements extrêmement importants. En tout cas, pour l'homme d'État que je suis, nous devons toujours être à l'école des religions qui nous démontre une fois de plus euh, qu'il faut d'abord qu'on croit en nous-mêmes, qu'on a les capacités endogènes si on y croit, de faire ce qu'on doit faire sans avoir besoin de tendre la main. Si je prends à l'échelle étatique, nous avons toutes sortes de ressources naturelles, nous avons une jeunesse, nous avons euh, des terres, il manquait peut-être le petit déclic en termes de leadership, mais si nous croyons en nous, nous nous nous avons la capacité de propulser nous-mêmes notre progrès économique et social que tout le monde attend depuis longtemps. Et c'est ce que symbolise de qui que ce soit, c'est les contributions des croyants qui ont permis d'édifier cet ouvrage. Et le second enseignement qui est tout aussi important, c'est que tout ce qu'on fait euh, dans la transparence, en mettant en avant les vertus de probité, d'intégrité, produit des résultats. Et je suis à peu près sûr que, et je ne le dis pas pour flatter le président du comité, le comité lui-même, je suis à peu près sûr qu'ils ont beaucoup plus mis de leur poche plutôt Euh, de détourner les, les, les contributions des croyants. Et cette gestion saine et vertueuse a permis d'avoir ce résultat qu'on n'aurait pas eu si on avait pas, on a été dans un autre cadre. D'abord, ça aurait été largement surfacturé, mais au finish, on n'aurait pas eu euh, cette qualité dans le rendu. Donc, nous, nous devons nous inspirer de ces valeurs et de cette euh, pour améliorer la gestion publique, la gouvernance publique. Et c'est important pour nous. Et vraiment, nous sommes ravis, émerveillés par cet ouvrage et nous prions euh, pour que le Seigneur puisse rétribuer euh, largement tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, ne cesse que par euh, l'intention qu'il soit largement rétribué par le Seigneur par rapport à l'édification de cet ouvrage. Je vous remercie.